asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh en la responsabilité hélas depuis le 24 mars le régime qui à la tête de ce pays est un régime qui le tapalé la ruse j'aimerais pouvoir leur dire que la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 ça a été recommandé par les nations l'Union africaine en le Sénégal l'a adopté en la sous le principe en 2014 consacré par référendum en en 2016 mes chers amis ne vous compliquez pas la tâche loin des bravades parce que je vous ai dit l'autre jour qu'il ne faut pas faire dans les bravades je vous demande je nous exhorte à savoir que vous n'êtes pas éternel dans quand on gouverne un pays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 tenez en compte. Wilane, la parole. Abdoulaye Wilane, continuez. Je veux simplement que les Sénégalais et les Sénégalais qui nous suivent retiennent avec vous et moi que le, Haut Conseil des collectivités territoriales doit demeurer. Le Conseil économique, social et environnemental doit demeurer. Je rappelle à ceux qui sont dans PASTEF et qui ont appartenu aux assises, des assises, qui ont paraffé, signé, assumé, combattu pour la mise en œuvre des conclusions des assises et les recommandations de la CNRI, qui doivent se retrouver dans leurs petits souliers ou derrière leurs petits doigts. Je termine en disant que ce n'est pas utile ni efficace de casser. Il faut certes réformer. Je veux être moi un réformiste. Si vous nous aviez invités à une réforme, pour les rendre plus viables, plus supportables, soutenables au point de vue de la dépense publique, vous aurez peut obtenu un consensus. Alors, ce n'est pas par la violence qu'on conquiert et exerce le pouvoir. Soyez plus humbles et retenez que la République est d'élégance toute faite en tout lieu et en toutes circonstances. Mes chers collègues, votez pour appuyer la décision de la Commission en rejetant ce, ce projet de loi qui est Merci, chers collègues. La parole est à l'honorable Diormeng, suivi de Momodou Sissé. asalaamaaleykum président maa ngi lay nuyu euh, di nuyu sama collègue député yëpp di wax ne président jub jubal jubbanti ci yow la njëkkee ndax daaw monsieur le ministre mbay Ndiaye bi mu nekkee fee perturbé danga koo génne te boobu ci ñun la bokkoon kon ren bu amee ñuy perturbé dañ leen di génne ci salle bi parce que nag vous avez la police de la salle may wax ne fi may njëkkee rek mooy tey jii waxumaak ak yi askanu Sénégal laay waxal mu am léegi benn député boo xam ne nee na sëtu sëriñ Touba la dëkk Touba te di woote ci jub jubal jubbanti ñu koy laaj ndax mën naa ñëw taxaw fii yëkkati loxoom waat ci sëriñ Touba mi mu yaakaar ne amul mbuur lépp ci jub jubal jubbanti ñuy may wax sëtu sëriñ Touba boobu ne moo gën doomu aadama yi yàlla sàkk barki Dembo Njaay ci suufu sëriñ Touba bi nga xam ne fa la fekk baax fa lañ ko yuuxoowee digg bëccëg te muy député du peuple kon ñu ngi koy ñaan ci jub jubbanti boobu mu ñëw wax askan wi dégg ko mu taxaw waat ne moom jub na jubal na jubbanti na ci mbuurkaat googu ñoo ngi ko ci woo mu ñëw leeral beneen bi mooy monsieur le président tey jii askanu senegal lañuy waxal. tey ku yeewu rek tiit nga tiit nga ndax criminalité passionnelle bi nga xam ne moo xew ci réew mi ñaata bakkan ñoo dee seeni njaboot di leen jooy ñaata jigéen lañ fi violé ñaata agression moo am ci réew mi seize yoo xam ne nii tey dig ci diirub ñaari weer ñàkk nañ seen bakkan ñu rey leen ñun ci justice lañ doon xaar monsieur le président ñun dañ ko doon xaar ci mbënd mi nga xam ne moo xew Touba pour mu lijjanti ko ñun dañ ko doon xaar mu dem assister famille yi nga xam ne ni tey dañoo leen a rey rey seen njaboot ñun dañ ko doon xaar tey jii ci commerçant yi nga xam ne nii tey jaxase nañ leen ak askan wi ndax dañuy taxaw def déclaration ne wàññi nañ njëg gi te wàññiwu ko jaxase askan wi ak commerçant yi ñun dañ leen doon xaar tey jii ci ngeen wàññi les de premier nécessité loolu lañ doon xaar. son excellence de président Diomaye ak premier ministre am fii nag la ñu gis ci réseaux sociaux yi la président Diomaye mu yëkkati loxoom ne gàcce ngaa